tey ñu recevoir nag nos camarades de la COJER de de de de Dakar euh, dirigé par le coordinateur Amadou Niang tey ñu indi woon suñu modeste contribution pour faire face euh, pour pour pour faire face à cette pandémie cette pandémie qui dont le virus est communautaire parce que ñun ñëpp gis nañ ne ñun ñëpp gis nañ ne tey virus bi cas communautaire yi moo gën a ëpp ci deuxième vague bi tey nag ñu enclenché. ñi def matuwaay yi pour xeex ko communautairement communautairement xeex ko nag tey sama ginnaaw yaa ngeen gis bàjjenu gox yi gis délégué de quartier yi gis euh, les ASC bi nga xamante ne ñoo ëmb les associations gis euh, la présidente de la fédération des associations bi nekk ci gox bi ñun ñëpp ñu mànkoo boole suñuy doole ne dañuy dem sensibiliser sensibiliser population yi si mbas bi am si dëkk bi sensibilisation bi nag si ñaari fàcc lañ koy defee benn pàcc bi mooy dañuy sensibiliser waxtaan ak nit yi wax leen feebar bi existence am les effets yu muy def si si doomu aadama yi deuxième phase bi nag dañuy wane ne euh, dañuy passer à l'action action bi ñuy passé nag day am benn caravane bi ñuy def jàllale ko si quartier yi waxtaan ak nit yi surtout commerçant yu ndaw yi boutiquier yi ñi di jaay tablier yeeg yooyu noonu wax leen ne takk masque c'est une obligation obligation la léegi si dëkk bi may leen masque may leen gel lool mooy deuxième phase bi donc maa ngi remercier ñëpp remercier sama camarade yëpp ñu ànd ak fii les bonnes volontés ñi nga xamante ni jàppale na lu mel ni docteur Malick Diop le directeur ADS e, euh, des ASEPEX e le directeur Pape Mayel Diop bi nga xamante ne mooy directeur ADS en même temps le ministère de la santé bi nga xamante ne jox nañu ay matuwaay ak le bonnes volontés yi nga xamante ne ñoo ngi si biir COJER de Dakar. indi seen modeste participation ñu regroupé yëpp ñëw jébbal ko centre de santé Gaspard Camara. loo bi daal trois trois mille trois mille masques lañ maye trois mille masques yi mille cinq cent yi masques chirurgicaux la euh, yeneen mille cinq cent yi masques lavables la parce que dañu ne peut-être masque lavable yi moo ëpp peut-être mucc parce que boobu dañ ko mën a utiliser parce que li gars yi di utiliser masque dafa mel ci centre de santé bi chaque jour dañuy jox personnel bi ay masques. donc loolu lu mu ñuy jural si économie dafa bëri donc ñu ne xaa ñu wut ay masque lavable nga xamante ne nit yi dinañ ko mën a sol peut-être à deux jours saa yu ñu wàccee mën ko raxas solaat ko le lendemain moo tax ñu boole si ay masque euh, lavable structure bi di structure parti alliance pour la république dafa lëkkaloo ak ndaw yi nekk fan point amitié pour ñëw indi suñu contribution fii ci ci hôpital Gaspard Camara parce que li ñu seetlu ba tax ñu def lii mooy que feebar bi mi ngi yokku cas yi mi ngi yokku da daan dégg ñu naan cas grave léegi ay cas sévère ngay dégg ñii dee gën a bëri ñii ñuy laal mu gën a bëri ñu seetlu na tamit population bi ñu ngi ci ànd ak sàggante boo xam ne kenn mënu ko expliquer sàggante boobu nag moo waral ñu dajaloo ku nekk jël li nga moom ci ay say moyens li nga am as tuut ak yeneen bon volonté yi nga xam ne jàppale nañu si ñu mobiliser li ñu am ñëw seet si le district centre bi nga xam ne mooy Gaspard Camara ñu jébbal leen li nga xam ne moom la am as si suñu contribution te duñu fa yem bu ñu fi génnee. ñu ngi remercier aussi waa SNEPS parce que ñoom aussi ñëw nañu fi indi fi seen contribution à savoir leur camion ak seen personnel bu ñu paree ñu ànd ak ñun ñu jël micro yi ñu sensibiliser waa koñ yi may leen ay masques inciter leen à ce que ñuy toog seen kër bu ñu amul lu farata lu ñu dox waaye tamit nañ respecter les distanciations physiques mais tamit nañ respecter port masque bi feebar bi metti na garaaw na kër goo dugg bu maire bi jabatul paa bi tension na ndaw ñi bu ñu sàgganee ba génn jëli feebar bi ci biti indi ko ci kër gi mooy lor nga mag ñi te loolu nag responsabilité ñëpp la dama jàpp ne état bi peut-être à son niveau li mu def mi ngi koy def waaye dama jàpp ne ñun ñoo war a ëpp responsabilité état bi parce que ku nekk war nga mën a aar sa bopp état bi du génn kenn nan la toogal sa kër wala takkal sa masque wala defal nangam ak sàngam li mu mën mi ngi koy def mi ngi décrété ay couvre-feu mi ngi jël ay ndogal di jéem a wàññi dajaloo bi ni mu mën boo seetlee sax dans l'administration sax heure travail yi wàññi nañ ko wala ñu ngi aménager les emplois du temps pour ñii bu ñu xëy see tey ñële xëy si pour bañ dajaloo bi tey li ñu def tey mooy que nous sommes conscients que feebar bi lu metti la te feebar bi mi ngi dal askan bi bu baax a baax a baax maintenant rek lii suñu responsabilité mooy ñu gën a aar askan bi waaye tamit ñu ñaaxat leen ñu gën a taxawaat moo tax teewaay bi ñu teew fii tamit ñu rek ñëwuñu fi waaye am nañ fi ak ay acteurs communautaires de base yi nga xam ne moom la ñuy fekk ci commune bi moo xam moo xam ay bàjjenu gox lañu moo xam ay relais communautaire fi tamit fekk fi médecin chef bi indi suñu contribution loolu daal moo nekkoon kaddu yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. action yu mel nii ñu ngi ciy remercier Dakar. euh, vraiment, c'est venu à son heure. Parce que euh, le truc là, c'est n'est pas une affaire ñuy foyer ou une affaire bu qui euh, On ne s'attendait pas à cette deuxième. Euh, nous une deuxième vague, bi mais bi mu ñëwee vraiment, il faut tard. Donc nunu ne pouvons que remercier ces, ces, ces actions-là, euh, surtout le COGER de Dakar. di leen wax ne rek ñu ngi leen di jaajëfal lii moom euh, santé des population amul prix vraiment euh, le choix de Gaspard tamit ni ngeen ko defee fii centre de référence nit ñi dañuy jóge ba tubaab jalaaw dañuy jóge ba feneen ak feneen di fi ñëw donc lii ba leen ko fi tegalee sans compter le personnel médical que j'ai bu ma fàtte sax personnel médical bi aussi lii dina leen aar ci ay affaires yu bari euh, ñu ngi wax sax dañuy ñëw ci wàllu vaccination dama ne nous relais communautaire il faut que ñu ñu jël loolu teg ko au devant ñun ñu jiital ñu ci affaire boobu accompagner ñu ak ay kii parce que chaque jour on côtoie euh, les population boo nekkul président ASC yaa ngi nekk président zone wala ay affaire yooyu ñooñu ñoo gën jege population yi pour mun leen convaincre lan moo war a tax ñu ñakku donc euh, je lance un appel à au ministère de di ministère santé daal ñu ngi koy wax daal loolu bu mu ci fàtte acteurs communautaires yi. les acteurs communautaires les bàjjenu gox ñoo ñëpp benn lañu ñu ngi leen di wax yàlla ñooñu il faut qu'il soit au devant ci affaire bi yi ñu jëm nii parce que affaire du affaire u caaxaan du affaire u foofu c'est une réalité bu nekk fii ci si kii bi demoon nañ ba xeex ci mu dem ba ñu ne Sénégal dafa jël deuxième léegi ñu ngi ñu ngi demaat ci benn pante boo xam ne baaxul ko en fait mais encore une fois nous remercions euh, le COJER. COJER en fait dañuy ñëw moment bu ñu leen soxlawee. parce que ñëpp euh, xam nañ ni que fu mu nekk nii euh, Covid bi euh, mi ngi mi ngi jël ay empleur yu yu jéggi dayoo population bi ñu ngi impacté gis nañ ni que taux de décès bi xaw na bëri tuuti e COJER ñëw def lii action bu mel nii lu ñu def ko lu dul di leen di leen gërëm parce que lii soxla nañ ko soxla nañ ko pour population bi mais soxla nañ ko aussi pour personnel bi nekk fii. parce que euh, nit yaa ngi Covid nit yaa ngi am Covid mais personnel bi ci liggéey tamit ñi ngi am Covid te bu personnel bi yëpp amee Covid loolu du baax donc euh, lii Koweer indi dina jëriñ population bi waaye tamit dina jëriñ personnel bi donc moo tax tamit ñuy lancer appel COJER ni leen par rapport euh, pour la communication ñu communiquer tamit dans ce sens la woo nit yi wax leen ni que test yi ñu ngi fii disponible gratuit donc ku sa gis ni da nga feebar nga dem consulter la bu fekkee dañu la war a defal test dañ lay defal test donc loolu tamit lu ñuy ñaax waa COJER la ñu yokk seen euh, plan de communication comme ça mun a permettre nit yi xam ni que feebar bi am na feebar bi lu réel la feebar bi euh, mun nañ ko ci teel a jóg pour def prévention bu baax faj nit yi voilà donc je pense que euh, en gros loolu la di dellu nag di remercier di remercier COJER et puis di wax ni que. def appel tam yeneen bon volonté yi parce que lii soxla lu nga xam ne dañ ko soxla la état bi mënul def lépp mu ngi def li mu mën mais état bi mënul def lépp donc on li ngi woo bonne yeneen bonne volonté yëpp bu ñu mënee ñëw jàppale ci xeex bi ñu àndandoo parce que yaakaar naa ñu ñëpp bu ñu jàppante ci xeex bi dañ mën a arriver freiner épidémie bi.